ci yenn kaay yi. ci yenn kaay yi. El éclairage Seydou yi nga xam ne nag moom la ñu xëyandoo match Sénégal Coupe d'Afrique bi nga xam ne nag moom la doon amal yéenekaay bi di xamal kay na waaye ñi di gaynde Sénégal yi gannaaw bañ bi dañu xamal ne askan wu bëri ñoo génn teeru ñi nga xam ne daal ñoo di gaynde Sénégal yi feesoon daal lu kenn mus a gis loo xam ne daal depuis 2002 la ñu gëj a gis lu mel yéenekaay bi dañu xamal mbir kay dafa ëppoon loxo waa dañoo génn teeru ñi nga xam ne nag ñoo di gaynde Sénégal bi nga kay duñu xamal ne ñoom kay li nga xam ne daal gis nañ ko fi nga xam ne nag moo di ci tertub gaynde yi gën nañ ko gis ndax gannaaw ba ñu wàcc aéroport lu toll ci juróomi waxtu yoo xam xam mu mel ni kay dañuy feet direct info du xamal ne gàcce dëgg kay mooy lii bu fekkee ne gaynde daal lu mën a ñàkk la ci réewum Sénégal waroon nañ cee mën a seet xool daal xam ba yoon la jël ba mbir yooyee naanaam daal askanu Sénégal ëllëg daal bu fekkee ne coupe d'Afrique bi xam ne daal moom la ñu dënmal ñu mën caa indi ndam maa nga ca coowal pétrole ba l'observateur di ñu xamal ne Aliou Sall kay jamono ji ñi nga xam ne nag ñoo dig mu di division des investigations criminelles ña nga ci ay compte maanaam daal di gëstu di lañ bët lépp loo xam ne nag jëm na ci mbirum Aliou Sall gannaaw mbirum pétrole ak coow li nga xam ne daal amoon na ci yéeni kaay bi dañu xamal ne mbir yi kay léegi ndax mbir yooyu dana yomb ndax ki nga xam ne nag mooy maître Abdoulaye Wade bokk na ci ñi nga xam ne daal war nañ koo mën a woo ngir diglu ko ci lépp loo xam ne nag jëm na ci fànn gu numé maanaam daal ñi nga xam ne daal ñooy waa di banque yi gën a mag ci Sénégal dem nañ fa ngir saytu lépp loo xam ne nag jëm na ci fànn gu numé mbir moomee ndax dina leer wala déet ñuy laajte kay jege jamono ji mooy Ousmane Tanor ji ne kay a bi duñu xamal ne mbir la moo xam ne daal ñoo nekkee foofee a ah bëri na ñoo xam ne daal maanaam yaakaaruñ lu ni mel ndaxte dañoo jàpp ki xam ne nag moo di Aminata Mbengue Ndiaye bëri na xam ne mënuñoo def ak lu mën xew yéenekaay bi duñu xamal ne mbir yooyee balaa yàgg mbirum PS dana leer maanaam daal danañu xam mbir yooyee fan lay mujjee li nga xam ne daal xam nañu fan lay mujjee laas yéene kaay duñu xamal ne jamono yi nga xam ne daal xamal ne ma ngi ko takkee fi nga xam ne nag moo di Almadi te kookee nag jarbaatu ki nga xam ne nag moo di Ndiouga Kébé la maanaam daal Samuel Sarr jarbaatu Ndiouga Kébé la takk ñaareel